beaucoup doyen yow it ñu ngi lay jaajëfal lu baax a baax euh, mbégte rek na ni am euh, di bokk ak yow bi la jotaay doyen léegi-léegi sa biir wax yaa ngi koy junj naan campagne bi tey mooy huitième jour euh, tey jii boo doon tënk li nga xamee ne nag moo di bilan bi nan nga mën jàngatee huit jours yi Euh, nan nga ko mën jàngatee si Ousmane Sonko gis nañu huit pôles euh, territoriaux yi nga xam ne teg na ko euh, bi campagne bi door rek léegi jotagum na visiter loo xam ni ñetti pôle la waxtaanee aussi ak li nga moo di Sénégalais yi gis nga coalition Sàmm Sa Kàddu ñoom it démb ñu woon fële ca côté Kaolack jàmm ak njëriñ bu Amadou baa aussi mi ngi ci terrain bi takku wàllu ñu ngi woon fële ca ca côté Fouta tey jii nan nga nu mën tënkalee bilan li nga xam ne nag moo di huit jours durant les huit jours euh, le le parti au pouvoir en l'occurrence je veux dire le PASTEF. bi nga xamante ni ñoo am seen liste. Euh, bi ñu démarré tout juste lu ñu gis mooy ñoom vraiment bi ñu démarré ils ont démarré avec une campagne thématique mais commencé fu ñu dem yëpp bëgg a jaay projet bi wax ne carrément lii moo leen tax a jóg lii moo tax ñu bëgg am une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir dérouler euh, le programme. Mm-hmm. alors dans un premier temps ñi nga xamante ni ñoom la nekkal en face di jonga war a jongante ñooñu ñi ngi woon ci beneen ñoom ñi ngi woon ci leneen ñi ngi woon ci ay débat de personne waxante xasante wax lu nekk mais après au fil au fil temps ñuy dem gis nañ ne. Mhm. boobu du foofu. essayé nañ ko jéem a suivre ci lu mu wax. Mhm. am na si koo xamante ni pointé na ko du doigt wax ne dafa def malversation wax ne am na degré de responsabilité si li nga xamante ni moo xew ci réew mi ba fii mu toll ni réew mi nëlmëre am na si koo xamante cité na ko ba wax ne moom am na si responsabilité bu mag a mag a mag bu bëggee sax ñu toog débat public ñu waxtaane ko moo xamal ko carrément moom degré de responsabilité am wax na ko wax na si ñeneen nit takki na ne leen mais après ñoom ils ont essayé ils ont tenté peut-être de répondre ci li nga xamante ni moom la Ousmane Sonko di wax pour vous dire rek c'est le maître du jeu. Mhm. Ousmane Sonko moom mooy ki nga xamante ni depuis que campagne bi démarré ba léegi lu mu wax ñoom ci loolu la ñuy jéem a sukkandiku pour mën a tontu mais je vois sur ça. ñu ngi si huitième jour. Mhm. gisuguma ba léegi benn benn benn coalition boo xamante ni li Ousmane Sonko wax teggi nga ko. Mhm. gisuguma ko benn yoon. lu dul lu mu wax du dëgg léegi ñuy wax di mais doo benn doo indi benn élément de preuve. Mhm. doo apporter une réponse bu tax nit ñi war a tax ñu ne kii kat wax dëgg yàlla lu Ousmane ko waxoon du dëgg. loolu moom vraiment mooy li nga xamante ni gis naa ko léegi nag am na loo xamante ni du ñun du suñu du suñu responsabilité responsabilité askan wi la soon eux qui vont voter ñoom ñooy sànni seen carte suba ñi ngi déglu ñi ngi déglu ñëpp. Mhm. ñi ngi leen di recevoir ci si ci gox yi. di déglu li ñuy wax bon léegi nag ñoom seen bopp après le 17 on verra on verra lan mooy xew mais daal li ma jote jàpp pour l'instant ci li xew a gum ci campagne électorale bi le parti au pouvoir mi ngi invité les autres les autres coalitions à ce que ñu ñëw si une euh, sur une campagne électorale non seulement civilisée apaisée mais aussi une campagne électorale thématique uh -huh. waaw loolu gis naa ne daal vraiment loolu la leen woo mais te loolu ñu leen woo man d'après samay analyse ak li ma seetlu gis naa ne daal fi ñu leen woo. ah ñëwaguñ ci carrément pour mën a répondre si euh, li nga xamante ni ñoom ñoom lañ leen di ñoom moom lañ leen di wax. tàllal tàllal seen programme wax bu nu demee ba assemblée. booy tàllal seen programme parce que am na si yenn kii yu ma jot a dégg. bu en tout cas ñun bis bu ñu ñëwee au pouvoir léegi sax laay commencer dégg léegi nii ñun bu ngeen ñu mayee majorité dinañ jéem a. Euh, dugal foofu projet de loi ah. boo xamante ni yaaka ba Tahirou ah. Tahirou Sarr déglu naa ko Tahirou a loolu au moins mun nañ ko jël en compte ah. wax la joo xamante sax nit ñi mun nañ ko dégg mais quant aux quant yaa ngi wax affaire Casamance tout de suite pourquoi répondre sur ça vraiment pourquoi répondre si affaire Casamance alors que li mu wax y a rien de grave d'ailleurs bokk na si thème bi oh, dinañ si egg si li ma si bëgg a wax dinaa ko si wax mais pour dire rek ne nit bu fekkee da nga amoon da nga yoroon ay da nga yoroon ay responsabilités yoroon réew mi pendant douze ans nga yor ko nekk comptable ci bilan bi nga xamante ni moo fi nekkoon la logique voudrait que bu fekkee da nga dellu siwaat pour ñëw ne da ngay taataan baatu askan bi nga teg ci seen nopp loo xamante ni nit mën na koo dégg parce que bunu loo mun loo euh, ne yow bi nga yoree réew mi amoon ngeen loo xam moom ngeen jaayoon réew mi ne moom ngeen di def mais parle sur soi wax ñu loo xamante ni suba lii moo tax parce que Ousmane a dit que ne yéen vous da ngeen yóbbu le pays presque en ruine. Uh-huh. loolu la wax mais dites nu yéen non le pays n'est pas en ruine bi ñu leen koy jox nii lañ leen ko joxee nii nii ci anam bi. Uh-huh. ñu mën a dégg mais bëgg a ñëw rek taxaw sur la base kii lu muy wax du dëgg tegoo ko ci preuve tegoo ko ci dara wala ñoom ñoo ñu waxoon projet am na sax ku ma dégg. manque de d'argument taxaw mu naan y a pas de projet euh, Amadou Mame Diop. Mhm. comment un ancien président de l'Assemblée nationale peut sa permettre di taxaw public ngay wax nit ñi di la déglu yow ngay une personne autorisée. Mhm. nekkoon fii yoroon assemblée nationale jiite ko amuloo looy wax lu dul naan projet amul ñii amuñu projet ba mu yàgg nga retourné waat sa biir wax nga ne projet bii ñuy wax sax mais. du duy wax du n'importe quoi gis nga quand on la politique politique d'accord mën nga ko def. Mhm. mais aussi ci def def politique bi yow yow sa bopp yow en tant que personne war na am yoo xam war nga ko jommalee sa bopp. Mhm. war na am yoo xamante ni waroo taxaw publiquement di ko wax ñu di la ko xeebee. Mhm. yow wax ñu si assemblée nationale da nga doon déroulé wax ñu carrément assemblée nationale li xam y a eu des y a am na y a eu des yoo xam am na biir assemblée nationale. te yow ñu Euh, le réglement intérieur de l'Assemblée nationale bi nga xamante ni ñoom dañu dañu dindi woon. Mhm. li concernoon le ministre le le le le premier ministre. ba tax ñu ne leen re allez revoir votre règlement intérieur. Mhm. boo xamante ni moo war a mën a permettre le premier ministre mu mën a ñëw def sa déclaration de politique générale. Mhm. yow nee nañ yow te yow bokk nga ci. alors yow leeralal nit ñi lan moo tax pourquoi ñu dindi partie boobu. fan la ñu voté ba dugg ba xam nga y a des yoo xamante ni les sénégalais aimeraient savoir façon doxalin bu mel noonu. lan moo tax yow si foofu lañ lay xaar mais xaaruñu la si ay euh, ay affaire projet waxatuñ ko. soo ça c'est derrière nous gis nga fu mu nekk euh, le le parti au pouvoir en l'occurrence le PASTEF est en fu mu dem mu ngi wax li nga xamante ni moom la kii référentiel 2050. loolu waxatuñ ko. nit ñaa ngi koy déglu xam nga yow lu ñu bëgg dégg ci yow booy wax nga wax loo xamante ni suba askan bi mun na ko bu ko déggee ne ah c'est c'est l'ancien président de de l'Assemblée nationale qui a parlé. Mm-hmm. di deuxième institution de la République boo taxawee di jël kàddu bëgg a wàcc comme ñeneen yi ñuy defee man je trouve ça vraiment. vraiment indigne d'un ancien président de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. parce que tey am na fu ñu doon toll ñu mel noonu. ancien président de l'Assemblée nationale yu fi jógee yépp mhm. am na fu ñu doon tollu tey ci mbirum assemblée ba dañ leen war a dem sax di leen consulter mhm. pour di leen laaj seen yenn parfois seeni i avis ci yenn kii nga jox ñu si mhm. mais taxaw non seulement nga ne da ngay dellu siwaat pour ñëw campagne nekk député et je vois mal lan moo ko war a motiver boobu mën a ñëw taxaw naan dafa bëgg a nekk encore député à l'Assemblée nationale. Amadou ah, Mame Diop man ça moom vraiment c'est une question que je pose à à Amadou Mame lan moo ko war a motiver bu mu war a ñëw ne dafay bëgg a nekk député. xam nga ñoom toujours li leen di askan bi di jiiñ dañ ci dugg. li leen di askan bi di jiiñ mooy ñii nekk ñu fi li ñu bëgg mooy suba sàngoo mbalaayu lan pour pouvoir mën a mën a daw yenn yi nga xamante ni xëy na mën nañ leen ko toppee. genre protection loolu du leneen amul leneen. y a que parce que man loolu laa gis gisuma leneen. Mhm. alors donc genre discours yu mel noonu vraiment ñun soxlawuñu ko. soxlawuñu ko daal. alors euh, doyen dañuy ñëw ci ci ci euh, dikku kii di président Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bu mu demee fële euh, Turquie njëkkee ca Dubaï bi mu dikkee dafa am kàddu yu am solo yu muy yëkkati jëmale ko rek ci li nga xam ni moom mooy situation réew mi ñeel violence bi nga xam ne naam sax moom alerte woon na avant nuy àgg ci li nga xam nag moo di campagne bi. Euh, gis nañu violence daanaka fii la dooree si premier jour campagne bi nu attaqué woon li nga xam ne nag moo di euh, caravane Abass Fall ñu si am ay blessures nu xëy si suba gis euh, siège taxaw Sénégal bi mu dikkee moom nag sàkku na ci ki nga xam ne moo di le ministre de la justice mu ubbi ci li nga xam ne nag moo di ab mais enquête boo xam ne enquête bu indépendante lay lay doon amul kii fii la bokk amul kële fay la bokk